بسم الإله الذي القرآن قد نزل من ابتدائي وأرجو عنده النزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي لق لساني واحلل منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما صدور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki julit yi noo ngi leen di nuyu di am mbégte ci dajewaat ak yéen fas yéena séq ak yéen jataay sëñ abdoulahad jaxate discours bi sëñ abdoulahad defoon nga net lu ko bu bokk yi teewluwaat ko bàyyi xel bala señ fallo ñew ngir leral lu génneel lu tomb yooyu nekk ci bir disco bi kon sëñ abdulahat bismillah kon bu barkee ko ci ay fàttam ñu bok yépp ak fu ñu mëna a nekk ñu ma sa assalamu alaykum bok yépp ma ngi leen di nuyu di leen sant di leen baal ak am ci lu ko ko lu ko lu am am njariñ te nu ñoo ko ngir njariñ moom jariñoo rek lan lay jariñ léegi yàlla fi mu nekk te dara war ko fa jëlee lu nu war a xam war koy fàttaliku war di ko waxtaan di ko leeral fi nu war a nekk lu suñu bopp it te dara rawatul faa jëlee baax lu nu fa jëlee di sunu lor lu nu war di fàttaliku la lu nu war di waxtaan la mu toll li nga xam ne it mënuñu koo ñàkk te saa su nekk nga di wut te kenn bu nekk di ko yittewoo te yàlla la boole denc ko ci benn barab xam le barab ba wala yoon ca jëm loolu lu nu war di waxtaane la te sunu njëriñ la li nga xam ne itam sunu taxe mënuñu koo may sunu ngóora mënuñu koo may coobaral yàlla ko mën a may ak ndimbalam loolu it lu nu war ñaan yàlla la fu nu toll loolu ci laa bëgg lu waxtaan ci tey yàlla daf di buur boo jikko ju nu ko mën a ak fu nu ko mën a xalaat rek bis bu nu dajeeg moom dana fekk jikko jamu jikkoole boppam jooju jikko rek kay doon te wér ci moom bu keroogee jooju jikko mooy jat ya'lamu anna allaha shadidul iqaab wa anna allaha xafurur rahim li mu wax ne xam leen ne yàlla kuy tooñ te tuubul ba faatu dana ko fekk muy ku metti te ko dugal ku tooñu du jub ba faatu ja dana ko fekk muy kuy jëndale ku yëgale loolu la koy koy suñu borom tayit njëggalam ko bi lu mu yaat yaat yaat jomm na ko ko jëndul ngir dafa wax ne wa man ya'mal su'an aw yaslim summa yastaghfir Allah yajid Allah rahima ku jëf lu wala nga tooñ sa bopp ci kaw def lu yàlla ay tere ba noppi jéggulu jéggulu yàlla te ànd ak rëcc da nga fekk yàlla mu jéggale di yërëme dellu wax ne leen yàlla ndax yàlla ku jéggale la ku yërëme la mbugalam bi itam lu muy tar tar tar yoonu ku tooñul nekku ca inna la mujrimina fi asabi jahannama xaalidun rek la wax tooñkat yi ci mbugal lañu dëkk fa xaw ci biir sawara laa yufattaru anhum wa hum fihi mublisun te mbugal ma dégg ko waaye fal lu tuuti tuuti du doggalante lay def seen saar dañuy def ak na mokk na xëy ak seen rek ba xaw wa maa salamnaahum walaakin kaanu hum saalimiin te yàlla tooñu leen waaye ñoom ñooy ñi tooñ dellu nañ fa maa li zaalimiina min ansaar te a tooñ du loolu kon war a nan fu nu ko mën a xalaat bis bu nu dajee moom du ko fekk fu dul xaafiri zambi wa xaafiri tawbi shadidil iqaab ki jéggale bakkaar yi ku jéggulu yu nekk tuub ku tuub tey metti te taraf mbugal ci ku tooñ te nangu woon a jéggalu nangu woon a tuub dafaat ja loolu dama wéral ngir inna rabbaka la suu maxfiratin wa suu xaarin alim yàlla su borom borom jéggal la ci ku ko jéggalu borom buggal la bu mett ci ku tooñ te nangu woon a jéggalu te yàlla nag buur la boo xam ne nëbbul jikkoom da koo wàcc mën a màng yudabbiru l amra yufassilu l ayat laallakum bi liqaa'i rabbikum tuuqinuun rek la wax na mbir yëpp faram fàcce ndigal yi ak tere ndax ngeen wóoru na da ngay tase te wax yàlla nag amul lenn loo xam war na koo def lu may nag moom na bànneexoo yàlla moom na te sax ci yàlla moom moomeelu yàlla kay boo déggee ko ñu ko tudd dafa xam lu nekk ci biir loo xam ne moo tax di su ko wax nde du kenn du nattable waaye ak mbëggeel day lu am doole ci nit loo xam ne nit bëgg na ko rek bu mbëggeel ko rek loolu daal muy bëgg na moom bu dul yàlla nag daal di doon musiba kon nag nan nag yàlla mi nga xam ne sunu moomee rek muy sunu jàmm moomee yàlla nag ci noonu euh, ci la sunu jàmm nekk nan ko nangu te sax ci ngir dafa wax ne inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ñi nga xam ne wax nañu ne yàlla mooy suñu borom ba nag sax ci jub amul ñàkkara ñu ko seel tay wala ëllëg أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ñooñu ñooy waa àjjana dañuy béy ci biir ba xaw tawal seen borom ba nag sax ci jub malaaka yërmaane yi dañu wàcc si ñoom di dalal seen xel naa leen bu leen ragal fa ngeen jëm tey muy àllaaxira bu leen jàpp ci li ngeen di war a gaaw muy àddina ak ngeen fi nekkal bëgg leen ci ne da ngeen tàbbi ak leen dañu leen doon dal bu yàgg ba tey kon nag loolu waree na ne nangu yàlla moom la rek ci la suñu jaax nekk tey itam gàntu yàlla moom dafa xam lu ñu loo xam ne wala yaa si billah ndax da ngay dem ba yàlla dund dana ko wax moom loolu yàlla dana ko dund ba faw waaye nag danaa leen ko misaal ci kum daroon ba na am na benn jaam boo xam ne ñëpp dégg na lu dëgg ñu dafa wax seen xam-xam nekkoon na fi bañ a teg yàlla fenn yeggoon na ci di wax ne ana la bu dum al maa seen buur bi gën a mag maa alantu lakum min ilahin xayri xaw ma leen ak benn buur bi man waaye ba mu ne ba mu nekkee ci loolu bañ loolu dana am ma ne tàgg ci wa kaana amrullahi qadara maqdura ne wëlbët ne tàgg ci wa kaana amrullahi maqdura mbirum yàlla lépp dogal la mu àtte ba wéyee ko nag dara la ñu sëgul lu ma ni aantu annahu laa ilaha mel na ne ku bëgg dugg yàlla di wax ne gëm naa ne kenn na dugg loolu te yàlla dafa daal di gàtt nangoo ci boppam da koo sànni nangoo ci mu dugg ma nga gën a ko daanal waa ana minal muslimin man ci jullit ñu laa bokk tey eh, eh, xanaa léegi rek la ko daal di tegal déedéet daal di jëfandikoo moom itam ci jikkoom ñi nga xam ne moo gën a leen tënk yoonu Firawn falam yëpp yan faamu iimaanahum gëm nga xam ne gannaaw bu ci jàkkaarloo ay musiba ñu wet ko boobu gëm duur tuur lu dul ak gëm boo xam ne lu leen jariñ na wël bët jëfante ñu ñi nga xam ne gëmoon nañu yàlla te ragal ko dëgg dëgg ragal ba loola yàlla sëlul ba loola yàlla fekk leen ci jëfee ñu yàlla yooyu mu jëfandikoo ba saa moo dëggal kàddoon nga moo ne zalika bi anna Allaha xamal na si naaru wa anna al-kaafiriina laa mawlaa lahum yàlla mooy bu ñu fekk ñi nga xam ne gëm nañu ko da li nga noonu amuñu ci ko kon ngeen xam ne nag yàlla moom rek la suñu jàmm nag ko def gannaaw loolu ba ñu tëb lu ñu te mu wér te mu wér ma ceeb ñun ñun ñëpp soxla nañu ko kon gannaaw ñu ko amal suñu bopp nag sax kenn ku sa bopp ci yéen ñi fi dese loolu yëpp dama cër ñaanal sa bopp ñaanal sa soppe te yàlla boole ko dajale ko def ko ci benn barab xam ne barab boo dee war ñu yor ko ci jëf wuti ko rek la la war a def loolu mooy lan natt bi yow ne kenn bu nekk ba nga mucc yaa ngi koy ñaan ko toll kenn bu nekk bëgg nga wasa yaa ngi koy ñaan ko toll kenn bu nekk bëgg nga yàlla jàppatal say mbir yaa ngi koy ñaan ko toll kenn ku nekk bëgg nga yàlla musal ci bakkaar yaa koy ñaan fotol te loolu ba ma yëpp xel laa ak yëpp xel loolu wax na jaar ragal yàlla dëgg dëgg ragal loolu tax yàlla defal la ca wax na jaar ñu ko rafet ku yàlla defal wax na nga mucc wa yëpp sax laa yëpp ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla lu ko ak ko wa yëpp xel loolu ñu am ko ragal yàlla dëgg dëgg ragal mu defal la jàppale yëpp yalla sax japp ni sax jappé ku mu japp na la te ba sagal wa man yakun billahi an yakfira anhu sayyi'ati ko rafa yalla ko ko ko yalla ko fa la say yaw yalla ku fa la say barka euh dal ko ni ko dal ko la ko ko ni jox ko ni jox fi ngir yubaddilu fa euh ba dal ko ko ko അങ്ങനെ നിരക്കുള്ള ഫലം കൊണ്ട ലോകം ചാരയാകുമനമായി മോചിക്കും ഇന്നലെ അഹബർ ولكن الله يهدي من يشاء قال لك وقت بتاعي من كل الناس بتقول وأي هذا يقول يقتلوا القصر لما الله ربنا لما الله ما هو أنا معي نرجع ونرجع تيار بيد خبري بنتنا نقل بنا ركتنا مو أبو بنا كم الوحد لولس يا إلى إلى أمر عليكم ولا أنتم تحسنون الذين آمنوا بالآية وتابعوا jannata amatu wa asxaajakum tuxbaru yéen sama jaam yi na seen xel daal du ngeen fi tasaare bu leen naqari du ngeen fi tasaare bu leen ragal wala lu waral ngeen fi jàpp mbooleem sama jaam yi matale te jamono li ñu wax actualité na lool ndax fi jamono tollu lu bari fekk nañu ko ci biir mu melni rek sëriñ abdallah yalla falalon nako jëf falal ko wax te yar yi ben mënu ci ñak ci ku jité mbolo so jëfé ñepp mën a roy ca jëf ja jëf ja mat sëkk soo waxee wax ja jub di xam-xam di njariñ wax ju am njariñ alxuraan soxla na ko lool ci jullit yi yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida mel na ni sax ci wax ju jub jooju te tege ci yoon toftal na ci yuslih lakum amalakum wa yaxfir lakum dunubakum kon fexewoon na ba jekku jëf jëfu yiw waaye fexe woon itam ba jekku waxu yiw fi'lul xayr ak xawlul xayr lenn lu ci ne yàlla mayoon na ko ci lu mu mayul ñu bare bare kon Cheikh Mamadou Fadilou Bousso euh, ginnaaw bu nu dégloo discours bi sëriñ laxat Lahad Jaxate nettali léegi jële ko ci sëriñ Abdou boo nu doon dikkal ci discours boobu nga xam ne làmboo na ay njariñ yu bari ndax fekk nañu ci biir discours bi yàlla fi mu nekk te dara du ko fa jële fekk nañu ci biir wax ji fi nu war a nekk nun ci suñ bopp te dara woon lu fa jële fekk nañu ci biir discours bi li nga xam ne ñun ci suñu bopp mënuñu koo ñàkk fekk nañu ci biir discours bi li nga xam ne mu seen sunu pexem bopp rek mënuñu koo may loolu mu wax ci biir boo nu ko doon leeral ak lan mooy njariñul discours dëgg-dëgg rawatina discours bu am njariñ loo nuy wax ci loolu. jamono yi léegi ji nga xamante ni. boroom xam-xam yi gëstu di seet ba xam kiy wax waxam jim ko wax teg na ko ci aw yoon wala tegu ko ca tomb yañ bindoon nuru na ne Cheikh jiitu na leen ca tomb yooyu mooy yan dañ daan wax ne boo bëggee wax te wax ja am njëriñ te la mën a yegg te ña ko jubale nanga nga ca sàmmoonteeg ñetti tomb na nga andi lu ñuy tuddee tamhiid andi lu ñuy tuddee ard andi lu ñuy tuddee xaatima mooy wax ji na nga ko laytaayal tënk ko ba nga xamante ni ku yemoon ca tënk ba rek bu fa jógee dem danaa xam ne kat diw sàngam ci nàngam la doon wax waxam ja ci loolu la jëm te la ngay wax nekk du nekk du dëgg ku déglu lii fi Cheikh Abdou Ahad Jaxate wax ci discours bi ñibbi boo demee buñ la laajee lu Cheikh Abdou Ahad doon waxtaane tey boo nettalee ñeent yooyee ubbi ca bopp ñu bare bare kon tamhid wala ñu tudde ko muqaddama loolu doonte ne Cheikh Abdou Ahad andi lu ñu tur bi waaye feeñ na ci biir waxtaan bi nga xamante ni moom la fi sëriñ bi nettali léegi. ginnaaw bu ko tënkee ci ñeenti tombam tombam yooyu nag ci la dellusiwaat nag ne leen kaay leen nag yooyu ma tënkoon naa ko jël benn par benn leeral ko loolu lañ tudde alaar noonu la ko jëlee itam tomb par tomb bu ci nekk mu leeral ko. ba mu leer ci bopp bi ña waxal mu jàll ca moroom ja ba waxtaan wa jeex ko ku melowoo melokaan woowee wala muy ñaan nit ñi ci ñu tënk ci lu mel nii ngir tasaare ko waaye ku dégg ni Seex Abdul Ahad tëjee waxtaanam bi mi ko tëje ci ne ay njariñ ngi noonu yoo xamante ni bëggoon naa leen ko yegge yegge naa leen mu teg ca loo xamante ni ak ñaan la daal ne nag maa ngi ñaan ku ko mën a jot li nga jotli ko maa ngi ñaan tam ku ko mën a leeral ku leerutoon ci boppam nga leeral ko loolu xeetu tëjiin la ci ay wax kon njàngat bu njëkk bi mooy loolu moo di ne ni waa jamono yaakaar ne xëy na mag ñi fi jiitu woon woon seenu njàng àggutoon ci loolu Sëriñ Abdul Ahad leeral na ñëpp ci discours bi ci ne desuñ ginnaaw ndax li waa jamono yi tey xam ci ñoom la ko jël ci ñoom mag ñi ko jël ci andi tambir andi ard andi xaatima beneen njàngat bañ ci tegaat te du ma dellusiwaat ci li nga xam ne la fi sëriñ bi tudd ci discours bi waaye njàngit biñ ci tegaat mooy damuy bind bu rëy nag mooy sëriñ bi bëgg naa képp koo xamante ni nar naa nekk kilifa diine mu waajal boppam waajal boppam ci gan anam ci jàmmaarloo jafe-jafey jamono ba man caa àddu su jotee waaye bu cay àddoo itam mu dugge ca ginnaaw moom diinee ko ngemb mu duggee ca gisiinu diine te gis yinu diine rawatina diine lislaam balluwaay ba ca gën a mag mooy alquran moo tax nag loola feeñ lool ci waxtaanam bi ndaxte mbokk yi waxtaan bi dama ko cornomètre tollole ko ba ma tollolee jàng ko jàng wu teey jàng ko jàng wu xaw a diib wala woo xamante ni xaw naa bar tuuti ngir roy Seex Abdul Ahad gis naa ne ba ma noppee weesuwut fukki minute ak ñett ma ne kon naa jël fukki minit ak juróom ci ne waxtaanu Cheikh Abdoul Ahad bii ba mu koy wax ca jamono jam ko doon ñam ko doon waxal weesuwutoon fukki minute ak juróom waxtaan wu tënku ci fukki minit ak juróom nag te làmboo njariñ yooyu yépp nag ba noppi ka ko doon wax kaay leen nag ma indil leen li nga xamante ni boo gisee ma koy wax sax jëmewuma ko ci ñi nga xamante ni géej wuñ ci alquran wala mokkaluñ ko sax waaye ñoo ñooñu laa ko bëgg a jëmale ndax ñooy mën a xam ñooy mën a àtte Cheikh Abdoul Ahad ci njàmbaarte gi mu amoon njàmbaarte ak ni mu jekkoo woon alquran loolu nag ka ma koy wax mooy ku ko xamutoon walla ku ko xamoon te koo fàtte waaye ni mu jekkoo woon alquran moom yéeme na. ndax waxtaan woo xam ne jéggiwut fukki minute ak juróom nga dellu ci alquran lu mag fanweeri laaya ak ñett fanweeri laaya ak ñett ci fukki minit ak juróom loola ba tey maa ngi wax ak ku jekku téere bi tuuti wala ku ku cay ñaataatati waaye fa ngay xamee ne fa ngay gëna a ne lu jafe la mooy nga xam ne aaya sësaloowuñ sësaloowuñ yii yaa ngi ci téereb kaw bi yii aayaa ngi ci fukki isbak juróom yu njëkk yi yii ngi ci fukki isbak juróom yu ñaareel yi yii ngi ci ñetteelu fukki isbak juróom yi yii ngi ci mujjantal ba mu gën faa jafe ne bu sësaloo woon nekk ci wenn saar nga ne dafa tari dafa lay gën a yombe waaye fanweeri laaye ak ñett nga tibbee ko ci alquran ci barab yu wuute ci discours boo xam ne jéggiwut fukki minute ak juróom loola ku jéggiwut alquran doo ko waaye ma tegalaat la ci leneen nag ne la laaya yooyu itam jëlewu ko ci wennaw saar mi ngi ko jële ci fukki saar ak juróom-ñaar fukki ak juróom su la leerut ma tuddal la ko dem na ci suratul baqara jele faw aya dem na ci suratul ali imran dem na ci nisa dem na ci maida dem na ci al anam dem na ci suratul yunus dem na ci suratul ra'd dem na ci suratul furqan dem na ci suratul qasas dem na ci suratul ahzab dem na ci suratul ghafir dem na ci suratul fussilat dem na ci suratul zukhruf dem ci sóoratul ahqaaf dem ci sóoratul muhammad dem ci sóoratul muzammil dem ci sóoratul namli dem ci sóoratul talaaq muy fukki saar ak juróom-ñaar yoo xamante ni fanweeri laay ak ñett yooyu ci la tasaaroo loola nag laay waxaat ne bind ngi ci bu rëy rëy boo xamante ni kañ koy gën a fàttali sax mooy ki nekk kilifa diine wala ka ko fasoo nekk ci ne war ngaa waajal ne Seex Abdul Ahad Mbàkke waajale woon boppam ba yi nii alquran ba foo ci bëgg tibbee man ko faa tibbee canam la neexee te firi itam ci anam goo xamante ñëpp a cay jariñ waaye ñu jëlee waat ne biir fukki aaya ak juróom fukki saar juróom-ñaar ak fanweeri aaya ak ñett yooyu daf bu ci nekk ba mu ko tuddee itam daf la ko firi ci làkk bi ñu naan ndax xamal ñu ne alquran moo ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi mu firi la ko tuddal la aaya bi ba nga xam ko mu ne ne bii lay firi leeral ko loolu itam war a roy ci moom buñ dikkee nag ci discours noonu nga xamante ne nii moom la ko sëriñ Abdul Ahad ñu tuddee wax ne daf xaaj ñetti xaaj yàlla fa mu nekk te dara du ko fa fi mu war a nekk ñun ci suñu bopp te dara waruñu faa jëlee li nga xam ne waruñu koo ñàkk te saa su nekk ñu ko wut ak li nga xam ne suñuy pexe mayuñu ko ñeent yooyu moom la jiital di ko suñu pàccee tàmbalee ca bu njëkk ba. lu jëfe ni tam daf cee woote jëmee ci kaw ci bidaa mooy wéetal yàlla ak wéetal turam ya ak wéetal melokaan mu tibbal la ñaar ñaar ca melokaan mooy siddatu adaabillah ak saatu rahmatillah mooy mbugalam yàlla nam tare ci ku tooñ boppam te tóor tuuboo ko ba faax xamal ne la sunu borom ma ngay liggéey ku mel noonu rek ci mbugal lu taratar moo xamante ni mett na loolu waaye tam mu tudd yërmaande yàlla itam ci nim yaatoo ci képp koo xamante ni loolu ne def na tooñ na boppam wala nga ko tuub itam yërmaande yàlla bi nga xam ne yaatu na yooyu yëpp mu boole ko andi benn laaya bu jëre ci suratul maida muy i'lamu anna allaha sadiqu min wa anna allaha ghafurur rahim naka la ñu def te doon sóotu nisaa wax ne njëggal wala boog buggalal yàlla moomu li muy tax tax tax ku def bàkkaar te nangu góor yàlla musal la wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirullah ghafurur na te inna allaha ghafurur rahim mu wax ne itam mbugal moomu itam li muy tar tar ku tooñ sa bopp tooñoo yàlla dana dëgg ndax na ko yàlla tooñ mooy ñettoon seen bopp te mooy inna al mujrimina fi adabi jahannama xaalidun wax ne itam mbugal moom itam lu metti la lu sax la te dégg leen ko woyofal laa yufattaru anhum al adab wa hum fihi mublisun wax na itam lu leen ca fekk itam bàyyi ko rek ñu nangu ko ndax ñoo ko seen bopp mu jëlee ko surtout suuf ne wa maa zalamnaahum walakin kaanu hum zaalimiin wax na itam mbugal ma métti métti métti kenn ku leen di xeet ñu ko am wa maa min zaalimin mu mën na jëlee benn aaya ci surtout baqara bi des mën koo jëlee ci aal wax na itam nit ki lu bàkkaaram rëy rëy rëy ba mu naan ci yërmaande yàlla ndax waatu dambi waqaatu taw bi sayyiduna qaabil man ko jëlee yow raafet noonu la ko toppee ba mat fanweeri laaya ak ñett yoo xamante ni jëloo waaye ñu gis ne benn tomb bi rek te fan la yàlla nekk te dara lu ko fa jëlee tegtaloo na ngir saxal loolu ngir saxal loolu taw ci ci bopp bi ñëpp ñu waxal ci lu toll fukki aaya ak benn. bi ñu dikkee ci ñaareelu tomb bi mooy fan lañ war a nekk ñun ci sunu bopp te dara warul faa jële mbaa ñu ko jële ci sunu loxo boobaa mu doon jàngal ne jaam bi waxtu wu nekk la mu war a puukare woo mooy nekk bi nekk jaam yàlla te itam nangu ne yàlla ko bind nangu ne itam yàlla moom ba mu bëggee saxal loolu teg ko loola ci lu tolloo moom itam fukki laaya ak benn kon fukki laaya ci tomb bu njëkk loolu sax déggoo na lool waaye ñu xam ne li mu wax biir biir euh, nett li bi itam bi nett fam yeggoon ci kàccoore ak la ko tëdikkal ba yeggoon naan ana rabbukumul aala ak maa antum lahu min ilaahin ghayri te mën a dikk ñaari saa moom tam noonu itam ba mu ko nekkee na ci bañ caa bañ caa dellu gannaaw ba ne gàmm nga ci wa kaana amulay qadaran maqduran wala bu nëwal bi ne daaj ci wa kaana amulay maqduran muy dugg ku nekk xam ne wax yi woowu ni mu dëgëree ni ak ni wolofee bu doon ne te wolof am na balaa bu ko doon ne nit yi wolof yi ñi ngi jëfandikoo balaa danañ xam ne wax boobu gis na kanam daañu xam ne nga daaj ak nga gàmm wax muy la boo xamante nii ku bàyyi xel euh, bi muy waxal ak dégg gën dégg làkk ña muy waxal doo mën a mat loolu fa muy ndax noonu loolu jox misaal rek kii jàng ki nga xam ne dafa nàmp wolof ak ci nàmp wolof bu doon dégg baat bi ñu yem ki ko ak ku nàmp ci ne la dawal dawal jóge fii dem fële dawal kii ne la ñukkal jóge fii dem fële kii ne la futtikul jóge fii dem fële kii ne la sittil jóge fii dem fële ci naam wolof danaan la koy jàpp rek mooy kuñ sàkk ci moom mu toxoo ci place jëm ci place waaye kala koy nag mooy ka nàmp wolof mooy xam na ne def taa riib yu wuute na mooy demin wuute na buddeewul ak fillikul ak ñukkal ak tempal moo tax kon nag bu ne ne daj ne gàmm loolu kooku la amee njariñ njariñ loo xamante ni yéeme la kon foofu tegtaloo na fi fukki laaya ak benn bi mu dikkee ñetteelu tomb bi te mooy li mu mënta ñàkk te saa su nekk ñu ngi ko wut loolee nga xamante ni dafa am nit ñoo xamante ni nekk bu ñàkkee jot looloo ko ñàkk nga jot tey ñu baree baree bare sax suñu borom daf koo garanti ki am lu mu sàkk ci moom loo xam ne garanti ko ak loo xam ne daf koo garanti rawatina wërsëg mu ne nag loolu sunu boroom waxoon na la fan la nekk ak noo cay jote te mooy ragal yàlla te ragal yàlla muy tënk ci ndigal ak mooy sa nit tere mu dem suuratu talaax nag andil la fa laaya yooyee wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ak wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ak wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran kon foofu tegtaloo na fa juróomi aaya mu dikk ci ñeenteel ñoo xam ne moomuñ te mooy ñi nga xam ne sunu pexe mayuñu ko coobaral yàlla na ko mën a may moo di ak jub foofa dafa tegtaloo ci ñeenti laaya benn ba mooy innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha benn ba mooy yaa ibaadi laa xawfun alaykum al yawm wala antum tahzanun ba ca des mooy alladina amanu bi ayatina wa kaanu muslimin ba ca des mooy udxulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruun mu tëj ko nag dafa mu ko tëjee laa koy tëjee dafa wax ne lii mooy li mu bëggoon a leeral lii mooy li mu bëggoon a waxtaan bëggoon cee jëriñ nit ñi rek moo taxoon ko doon waxtaan mi ngi sàkk nag képp ku dégg waxtaan woowu mu jot ci ko ku ko dégg doon wala bu leerutoon ci sa bopp ñu ngi sàkk ñu leeral ko ko ñaanal ka ko dig ka dig ka digal ko moroom wala ka leeral keneen ku dul moroom sunu boroom mu defal leen ak muslaay ci zaahir ak baatin loolu laa yaakaar ne moo taxoon tam sax al lañ na saqaat ya an yu xut ku mel nii ngir bëgg a jëriñ ngir nekk loolu lañ ci yaakaar nga naan sunu boroom defal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lu am solo loo xam ne ma def na ko déggee ci biir waxtaan bi te mooy ñu ñu jàngalee yàlla fi mu ko war a teg ak ñu war a sàkku ci moom te mënuñ ko ñàkk te loolee rek mënuñ ko ñàkk ñu suñu bopp waaye li gën a lim bi daal solo rek mooy dégg gi ginnaaw bi nga xamee alquran dégg alquran jekku làkkam dafa bokk ci communication nit ñi suñu waxal ñoom bokkal aw la su leen ko gën ci dégg bataaxal bi mu dugg mu jàll ci seen xol day des nga joxe ci ini dijual a wolof bi mu am day tudd waat yoo xam ne su ko tuddee ni ci wolof danañ xam gàngal ak maanaam li muy yi gàng ak daj daj mooy dëgg aw toogin la woowu bu koy toog na koo bañ a toogee ak sago même dëgg yi wala bu njëkk njëkk ñun dëgg la toogin mu dëgër lay doon boo xam ne buñ la ko def loo daan def na ko buñ la buñ nit ñi tey nit ñi garab dañ ko faa di di di mu ne ñu toog ko toogoon kon loolu ñu ko sago daan na da ngay jëm am koo doon daw bu boo jàkkaarloo moom ngeen ne jàng mu yéen ñaar mbaa ñu ko na ci dara nga ne fa daanu jaaxaan nar ital yàlla bu ñu lalu sawara kon firaaw ne yi ko dal benn ci wéyatu waaye ñu ñu ko génnee la ci balaa amoon ne yu bare bare bari waaye ñu ñu loolu masha Allah ñu wax ne rek màggal gi nag màggal la ko jullit yëpp ko bokk rawatina murid yi Sëriñ Abdul Ahad bu ñu koy fàttaliku képp ku di murid jaar na bu baax nga bokk ca fàttaliku ga def cee jéego lu mu néew néew ngir jukkale ko ko ndax liggéeyal na lislaam liggéey bu kenn werantewul liggéeyal ko yoonu murid dañu wax ne ku te ku tax nga tal ko moom day talu ko woon te bu nu talee environnement bii nu nekk bu setee nii mu sete bii ak yi mucc nii mu mucce ah liggéeyam bu rafet bu sell ak bu dëgëraayam moo ko waral ne bu dul woon moom li muy doon dëkk dëkk bu sell dana yem ak dëkk yëpp waaye li tax Touba yemut ak dëkk yëpp nag taxawaayam boobu mu taxawoon ngir pale mbooleen lu yenu wutal dëkk bi taq-taq yi ne woon ci bi yépp mu dindi ko ba li mu ca juddu yàlla may leen tawféex yi dañuy dégg lu bon rek waaye duñ ko gis mukk li wér woon mooy ñi ne fii ku ci xetu cigarette xeeñ sa bopp di met ku soxla woon li ñu woyee mego ne dong bu ma ci indil bu ne ma may la ñaar da nga sonal gone yi lool te bari na réew yoo xam ne boo fa demee boo ne na ma kenn ku ne lu mego ma jox la ñaar gone ku ne mën na laa indil paan paan kon setal na dëkk bi ci mboolem lu dëppawut ak islam waaye itam du dëppawut ak nite luy tax nit mucc luy tax nit xelam sel musal nit ñi ci xëccoo ak tooñante ndax nit ñi itam kon dafa mel ni ñi ngi noddu fii la ñuy yemale kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu